bii benn la ci série de boutique boo xam ne euh, dañ ko war a lancer ci Sénégal te bii Sénégal abrité tey muy première boutique bi moom mooy cinquième boutique bi nga xam ne créé nañ ko boutique bu mel nii ci Afrique yëpp donc loolu euh, lu rëy la ci ñun lu rëy la tey ci suñu ay clientèle parce que ñun suñu suñu suñu euh, xëy ak suñu ay gont yëpp c'est xool naka la ñuy def ba bégal ñi nga xam ne am nañ confiance ci suñu marque bi ay aussi di ñëw di investir seen xaalis di jënd suñu ay produits donc ñooñu aussi dañ leen war a delloo loo xam ne fu ñu ñëw xam ni ñi ngi ci confort ñi ngi ci foo xam ne bakkane na aussi loolu moom mooy euh, vision bi nga xam ne moom la Tecno am ngir gën a bégal ñi nga xam ne ñoo ko topp muy ay clientèle am wa am nañ ay revendeur et d'ailleurs ñi nga xamné genre boutique yi sax buñ koy créer c'est toujours en partenariat ak revendeur yoy noonu donc ñi nga xamné am nañ confiance bobu noonu ba mëna bëgg boutique yi ni il suffira juste que ñu approcher wu ci entreprise et eh, puis dañuy collaborer ak ñom fexé ba créer leen lu melni ñom aussi ñu mëna gëna améliorer sen ay sen ay vente sen commerce gëna gëna jëm kanam mais aussi ñun tamit suñu image gëna dem ci kanam donc boutique yi buñ ko créer duñ ci yem parce que dañ koy accompagner ak ay promo parce que boutique bii ñu tijji tey à partir d'aujourd'hui jëm fii ak fii ba le set ab promo moo fi am wala ay promo sax yoo xam ne ku ci ne mun na ci gis boppam donc mun nga fi gagner ay ay ay cadeau moo xam ne jëlee ko ci ballon yi wala accessoire yi nga xam ne sax dañ koy commercialiser muy bultuf yi muy speaker yi yooyu yëpp ay mbir la yu ñu fi mën a gagné mais am na loterie loterie boo xam ne chaque semaine nit ku ci ne war na fi mën a gagné lu jëm ci ay télé ay réfrigérateur ay réfrigérateur wala sax ay euh, mixeur loolu yëpp ay loola yoo xam ne teg nañ ko client yi moo moo ñu tax a jóg client yi lañ ko fi tegal donc képp koo xam ne ñëw na ci boutique bi jënd aussi am nga chance su gagné ci yooyu noonu. ci waaw effectivement donc euh, depuis toujours dañu garanti suñu ay produits donc garanti boobu aussi dañ ko accompagner ak service boo xam ne boo jëndee sa produit dem ak moom mu am benn souci moo xam nga daane ko mu toj moo xam mu dugg ci ndox walla leneen. donc souvent mën nga am problème avec euh, matière authentique bi avons ñun matériaux authentiques yooyu noonu dañu koy ci service après vente bi nga mi ngi Sandaga ci wetu pharmacie numéro 1 bi la donc ku fa dem mën fa am réparation boo xam accueillir mais aussi la say produit ba nga comme ni ko donc aussi ça fait partie de notre politique de garantie bi nga xam téléphone accessoire garantie nañ ko sur minimum 13 mois donc le moment moy politique bi nga xam mom lañuy oui effectivement donc euh, depuis le mois de janvier on a annoncé l'arrivée de la grande famille de techno moi Tecno yematul rek ci jaay téléphone mais demande de Egon na ordinateur les leneen lépp matériel connecté de maison Les techno cette année ci muy 2024 bi pare nañ pour satisfaire ci clientèle bi moo tax boutique bii di ngeen fi fekk yooyu noonu nga xam ne moom la ñuy jaay d'ailleurs am na yu jot a egsi mais d'ici les jours à venir ordinateurs yi euh, matériel connecté yi moo xam routeurs yi la wifi yi wifi portatif lépp am nañ ko tout ce qui est matériel matériel connecté am nañ ko te mun ngeen ko retrouver ci suñ boutique bii nii